réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. Les Patriotes TV. image bii ngeen di gis moom la Cheikh Thioro Mbacké booleeg benn bataaxal boo xamante nii boo am am solo la nekk nouvelle boo xamante nii bu neex la ci patriote yi rawat na sax ki nga xamante ni moo di président Ousmane Sonko moom moomee di xam ne ne honorable député coordinateur Pastef. Euh, di Touba di Serigne Thioro di Serigne Cheikh Thioro Mbacké moom mii kat moo tuddee doom ki nga xamante ni moo di président Ousmane Sonko. doom ji sax nekk mën nañ ne ba li doomam bu góor boo xamante nii di Cheikh Thioro Mbacké xam na ko moom moomee nag di félicité ki nga xamante moo di Cheikh Thioro Mbacké ak président Ousmane Sonko di remercier bu baax a baax honorable député bii nee ko kat li nga def nii kat kontaan nañ si bu baax te li nga def tamit rafet na du déngo koo xamante nii kat xeexal askanam rek ñoo ko moo ko ñor waaye xeexal projet bi tamit mooy li nga xamante ni moo ko ñor ndax mu mën a libérer li nga xamante ni moo di popolu askan bi kon mu nekk nag beneen jaloore boo xamante ni ab sénégalais def na ko Cheikh Thioro Mbacké tuddee doom ki nga xamante moo di président Ousmane Sonko ndax nag loolee mën nañ ne nekkut gulet ñu di ko dégg fii ci réew mi jamono jii nag mën nañ ne politiciens yëpp ki nga xamante moo di président Ousmane Sonko mën nañ ni moo fi ëpp li nga xamante ni moo di turandoo te loolee lépp nag lu koy may du lenn lu dul yaakaar gi nga xamante ni sénégalais am nañ ko ci moom yaakaar googee nag yàlla bu ko suñu borom bi tas